alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah gannaaw buñ sant yàlla julli ci yonent bi tedd bi alayhi salaatu wassalaam jottaliku ci Mawlaana ñi ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaanal suñ mag ji yàlla wanale ko baayam ñu teeru ko teral ko yàlla nekk gan yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy mag ju baax ju uuf ñëpp mag joo xam ne référence la ci lépp foo ko gis alquranam ci loxoom mu nekk nekk bu rafet ci këram borom këram sut bi mbubbam sëriñ mi daf ko taalibe di toggal boppam di yekkal boppam di soq di mooñ di def loo xam ne benn jigéen nangu ko ci cër bi waaye rek résultat bi wax dëgg yàlla gis na ko yàlla may na ko ay doomi borom xam-xam ay doomi imam waaw foo ko gis mi ngeek alquran nekk référence boo xam ne ñun ñëpp moom la ñuy roy ndax saa yuñ muuree ji ji kenn ci ñun mu jëm ci këram rek liñ lay njëkk a wax mooy xoolal ci Fatoumata daara wax boobu rek doy na waaw royukaay la daayir te référence la waaw liñ mën a wax ci moom nag bëri na waaye nag ñu koy ñaanal rek yàlla xare ko aljanna ndax dem na fa mbaax amee njëriñ Ah, lan ngay wax ci moo la gën a marqué ci dundam loo xam ne nekk ko fàttali ko mu jëriñ ah, bu rafet bi mu nekk ci kër borom këram nekk kook ay wujjam ci kër borom këram uuf taalibe yi di leen dundal di leen jox ñu lekk di toog ñu ñu wër ko muy séddale ñuy lekk te terewut mi ngi jàng alxuraanam ji te liggéey bu mu war a def ci kër gi mi ngi koy liggéey ak oyof gi mu oyof ci kër taalibe yi ak uuf rakkam yi yëpp lu baax lu nekk mu njëkk koo def ba rakkam roy ci loolu moo ma gën a marqué ci moom ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko aljanna yàlla wanale ko bàyyi. macha allah jërëjëf. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun comme ni ma ko waxoon bu njëkk rek maa nansa min ayaati aw nansa naati bi xayri aw millah kullu nafsin zaa'iqatul mawt yaa ayyatuha nafsu mutma'inna irji ila rabbika raadiyatan mardiyya waa Dimatu Zahra bu baax li nga xam bu baax doon bàyyi àqan la foo fekk mi ngi tim am la alquran di jàng di jàngale di digal baax ñu koy jaale suñ xalifa bi Cheikh Amadou Ibrahim ak imam Cheikh Dia Aliou Cissé ak imam Modou Cissé ak mboolem gu Cissé Aliou Cissé ñu ngi jaale itam Cheikh Ahmad Tidiane Mouhamad Ibrahim Cheikh Mahi Ibrahim ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahim góor ak jigéen ñu ngi jaale itam waa Sénégal yëpp di ko jaale itam président Macky Sall di ko jaale itam waa askan bi yëpp ci Sénégal ak ci ummatul islam ak addina bi fu ñu toll ñu ngi ko koy jaale ndax ñun ñëpp ko ñaan ndax bànqaas bu rëy la tey ci ndax doy na ci rek. xadimatu saa di taawu Baay Ñas Cheikh Ibrahima Ñas la teel am ànd xam nañ ko ci àddina kenn du ko laam-laame ñu dellu ko jox di seede Aliou Cissé mi nga xam ne mooy baabul adra Cheikh Ibrahima Ñas doy na ci rek comme niñ ko waxee sànq yi mu am ku ku ko liggéey doo ko am man dama daan toog sama bunti kër di koy eemu man loolu jaay laa ko def soo demee néegam yaa ngi ko fekk muy jàng di jàng di digle lu baax su génnee dem marché am na ay awsa am na ay taalibe ay joolaa nga fa ñëpp fa waaye moom moo daan enoon duggam bi ci boppam ba enoon duggam bi téye bi doon ko joxe ay gàtt doo ko ay ginaar moom itam mu yoo gàtt doo gàtt lu moo tax tey réccu ko am na lu baax doomam yi tey ku ne xam na nu mu baax Assane Milade Gagny dem na fu ne ci àddina bi amul fu mu demul ci monde na fi ay américain tuubale indi fi lu nekk te loolu yëpp seen yaay moo ko liggéey dañuy wax liggéey ne añu doom waaye ñun jigéen ñi ci lii tagg ay góorgóorlu ndax ñu am doom bu fu jigéen ne rek nag laa ko fu jigéen ne rek maa ngi lay digal loolu ndax ndaw ju baax mooy jur doom bu baax Fatimata Zahra royukaay la exemple la man sama xale yi digal rek li may digal man seet leen ci seen yaay sax bu dee ñoo xam ne soxna yi soxna yi doomi bàyyi la man na roy leen seen bàjjen Fatou Binetou Zahra li mu mel daal kenn mënu ko wax boo ko doon wax du jeex ñu ngi ñaan daal yal na suuf oyof ko yal na dëkk ak azai da alisa cikin jagawa ilimi ka ba sa shi amadu ya ta barka muhammad sallallahu alaihi wasallam amna na lol moy am yalla ko allah karam kana adna moom itam ñu ngi koy ñaan moom itam yàlla bu ko jot jiitu ci bàmmeelam yéen ñii di filmé ak di jël yal na leen fi yàlla yàggal yàlla barkeel seen loxo barkeel seen rajo yi ak maa ngi ñaan itam bas mi nga xam ne moo ci àddina bi yàlla na ko yàlla ci àddina bi yëpp di ci jiitu yal na leen yàlla xale àjjana ñi feebar dëdd yal na leen yàlla saafara ñi nekk ci caabi féete leen gannaaw yal nañ génn ci barke mbooloo mi barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Baay maa zaalika alaa bi aziiz salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu